asalaamaaleykum seen internet BMC Pro am nañ mbégte ak kontante jàkkaarloowaat ak yéen tey nag ñu ngi fii nga xamante ni moo di Parcelles Assainies ñu seeti fa benn ndaanaan boo xamante ni ñu ngi koy wax Baye Mass balaa ñuy sori nag dañuy dem ñu laaj ko mu présenté aussi en fait ñu ñëpp xam kan mooy Baye Mass ñu xam aussi ci lan lay yëngatu exactement sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaleykum salaam wa rahmatulah di ziare bu baax bi di kontaan bu baax baax di rafetlu seen taxawaay bi di rafetlu si déplacement bi ngeen déplacé pour ñëw fii seet si ñi ci nga xam ne mooy suñu wàllu activité ci li ñu liggéey incha allah rabbi ñu jógee foofu bay Mass dañuy xuus ci li nga xamante ne moo di réew mii ñu nekk di Sénégal. seetlu nañ ni jamono ñi weesu ni réew mi xawoon na tàng tuuti ñu bëggoon tak tamit nga indi ci ay contribution ay ci wàllu actualité bi nga wax ñu lan mooy sa xalaat ak lan mooy sa gis-gis ci tolluwaayu réew mi. waaw alhamdulilah li ñu gis-gis si réew mi rek mooy ñun ñëpp li ñu ñaan mooy réew mi yàlla na fi jàmm wàcc euh, te jàmm nag ci la lépp xaj yàlla dogal na nag coow li bëri na waaye lépp xam naa tamit si jàmm lay mujj tension bi nag bëri na trop démb rek ñu ngi seetaan ensemble bi waaye nag li ñaan rek eh, député yi nga xam ne askan wi leen fal lépp lu ñu mën a woote rek nañ bàyyi xel askan wi nga xam ne moo leen faloon nañ bàyyi xel parce que nag dañoo daataagoon baatu askan yi wax nañ ne suñ demee si ensemble bi yéen lañ fay toogal bon nag suñ leen suñ leen indi leen loi rek balaañ koy woote nañ xool askan loi boobu ndax askan bi dañ leen gaañ wala du leen gaañ. jërëjëf sëñ bi bu ñu jógee faatu foofu dañuy delluwaat ci li nga xamante ni moom nga yëngatu. xam nañ ne yaa ngi yëngatu ci lu bëri ci wàllu seet ñu bëggoon xam nag ci seet yooyu yan façon seet ngay utiliser. exactement. waa alhamdulilah ñu ngi yëngu ci wàllu astral di yëngu ci wàllu médecine traditionnelle euh, ñi ngi seet ñi ngi listixaar nit ki nag ñu wooyee donc am xaajoom il faut ñu xam xaajo bi si ban côté la mën a sottee su fekkee dafa feebar danañ ko xool xam feebar bi ndax mën nañ ko faj wala ngi ko faj ba xam feebar bi lan moo ko jot ban feebar la parce que feebar dafa bëri nit ki rab mën na ko jàpp <coughs> rab mën na ko jàpp mën na nekk liggéey mën na nekk kortu mun na nekk beneen feebar boo xam ne organes ñoo am problème noonu donc nit ki suñu wooyee ne dafa am euh, problème ci santé rek il faut ñu xool lan mooy problème ba pare su fekkee wàllu nit ki nga xam ne dafay liggéey wala muy ut liggéey wala muy jàng wala muy mu def lu nekk pour bëgg ci réussir wala mu bëgg a dugg ci dara Euh, da ko war a léegi nag suñu ko waxee ñun danañ ko xoolal suñ ko xoolalee luñ ci gis rek danañ ko wax lii lañ ci gis incha allah rabbi su fekkee luñ ko mën a jàppalanteeg moom dañ ci mën a moom bu baax wax ko yoon wi war a jaar su dee sangar yi ñu koy jox bu dee téere bu ñu koy jox su fekkee course yu koy téel wala sarax yuñ koy digal mu dem def loolu leer na sëñ bi ñu bëggoon xam aussi en fait ci yan wàllu feebar ngay yëngatu ci lu bëri à part bi. waaw ci wàllu. Euh, médecine traditionnelle yaakaar naa ñu bëri war nañ ci xam ñu ngi ci bëgg a yàgg ñu gëstu ko nag dem ci réew yu bëree bëree bëri di ci yëngu ci wàllu maladie yu bëri di innové di innové nag euh, produit yi di ko defar defar bu sell boo xamante ni parce que dañoo gis ne euh, médecine traditionel dafa nekk métier boo xamante ni métier bu noble la suñu maam yi ñoo ko doon def di ci am ay résultats yu baax a baax. bon donc ñun ndaw ñi suñ jëmee jël relève boobu noonu war nañu xool fi jamono toll ñu ànd ak moom ba pare di ci gëstu te li ci gën a am solo tim képp ku ci yëngutum da nga war a xam dosage bi ñun yàlla dogal na xam ne dosage bi nit ki suñuy wooyee suñuy waxee euh, dafa feebar rek automatiquement suñuy waxee nat na leen manifester rek ñun xam nañ ban garab lañ ko mën a jox ba mu wér donc dañuy yëngu wàllu hémorroïde ndoxu siti éjaculation mauvaise haleine drépano donc euh, hépatite B yooyu yëpp dañ ci yëngu xam naa dañ ci développé incha allah ak yan garab lañ koy traité incha allah rabi. macha allah sëñ bi loolu leer na gis nañ ne tamit say produit li ci ëpp nebedaay ngay utiliser est ce que mën nañu xam ban secret moo nekk ci nebedaay. waa alhamdulilah xam nga ndemedaay ñun ñun ñun ñun sa Afrique wala ñun Sénégal ñun ñoo ko xaw a doy dal waaye dafa nekk garab boo xamante ni dama mos a dem Siin waxtaan ceeg benn Siin moo xamal ma ne yéen Afrique wala yéen Sénégal su ngeen xamoon lan mooy njëriñu moringa da ngeen koy jëmbat comme ni ñu jëmbate doomu aadama parce que scientifique yëpp d' nañ ne moringa dafay faj 313 maladies te garab na bu fekkee dafay faj 313 maladies te sox doomu aadama li mu soxla ci organam loolu yëpp mu ngi ci nemedaay parce que doomu aadama soxla na ay vitamine C soxla na vitamine A soxla na calcium soxla na potassium soxla na fer soxla na euh, magasinage ci biir yaramam parce que loolu mooy dundal yaramu doomu aadama comme ñu ne la oto bi dafay soxla huile dafay soxla ndox dafay soxla extra parce que loolu mooy dundal la benn bu si ne moringa dafa am loolu moom ngay soxla tam exemple tey nga dem wala nga jëndi pomme wala nga jëndi orange yooyu yëpp pour vitamine booy dafa sa yaram rek yooyu yëpp am na ci biir garabu ndemedaay te ndemedaay boobu mu nekk lu am solo loo xamante ni tey lépp lu organe boo xamante ni dafay faible ci doomu aadama rek ndemedaay ba parce que dafay raxas deret Euh, ñi nga xam ne dañu aussi mi nga xam ne duñu am dañu am problème nelaw ndemédaay boobu daf koy faj ñi xam ne dañu am problème mu ndigg bu métti ndemédaay boobu da koy faj ñi am problème mu jabet ndemédaay boobu da am problème tension daf koy faj jigéen bi nga xam ne régalam dafay tardé wala douleur régalam dafay métti daf koy faj jigéen bi nga xamante ni dafay taxaw lu yàgg daf koy faj day dindi ballonnement dafay faj wàllu éjaculation dafay fajaale ndoxu siti day faj hémorroïde moringa boobu dafay leeral bët moringa boobu noonu dafa nekk loo xamante ni nit ki bu feebaru sax daf ko war parce que boo fekkee vitamine bi doomu aadama soxla nga xam da ngay dem ci fruit bi jënd ko ñëw lekk ko pour soxla vitamine bu seeram léegi benn benn pomme bi li mu am wala benn banana bi li mu am wala benn orange bi li mu am loolu moringa bi ëmb na boo fekk dix produits yoolu benn moringa am na ko bon donc tey da ngay benn pomme bi nga lekk te wala nga lekk pomme lekk banana lekk orange lekk mango lépp boo jëlee benn kuddu ndeme daal rek remplacé na loolu yëpp bon dafa nekk loo xamante garab bu am solo la bon war nañ ko gën a bàyyi xel bu baax di ko jëmbat léegi nag Sénégal nit ñaa ngi koy bàyyi xel parce que nit ñaa ngi ci bàyyi ay tool de moo ngi nekk garab boo xamante ni pour le pour le monde si àdduna foo dem am na fa foo dem am na ay ay sélection yoo xamante ni tey boo soxla garab nebedaa am na muy loo xam ne lu am solo la parce que mën nga ko def sa cere togg ko lekk mën nga def ji di ko naan parce que mooy garab boo xam ne lépp lu ko nit mën a def macha allah loolu leer na sëñ bi bëggoon naa ñëwaat tuuti ci wàllu jus bi ngay wax parce que dañuy gis damay gis faral di gis ñu bëri ñuy jaay jus boo xamante ne jus nebedaay la est-ce que nekk na loo xamante ni ñu ngi ko ni nga koy jëfandikoo est-ce que jëfandikoo boobu jaar na ci yoon wala pour ingrédients yi ñu ciy def wala am na yeneen yoo xamante ne mën na indil problème nit ki benn problème ci wàllu santé aussi. waaw su fekkee danga koy defar jus naturel pour faju bi la loolu jarul def dara. li mën a àndal <clears throat> mooy mën na ànd bu fekkee ndemedaa bi toobi la da nga koy dëbb soo ko dëbbee ba mu nga segg ko milancé kook buy bi sukar jeex na bu la neexee nga def moringa bi kese soo si defee nag yeneen ingrédients bon donc yow faju taxatul laa jot peut-être nag ñi nga xam ne dañuy jaay bëgg mu gën a neex ñoom xooluñ ci loolu dañuy xool nu mu gën a neexee rek ba ñuy jaay mais dama koy wax ne bépp lekk bu la gën neex wala bépp naan bu la gën a neex moo gën a doon danse si yow parce que boo xoolee ne <coughs> tey naan yi ñuy naan yëpp dafa am effet secondaire naan yi ñu naan yëpp dafa am chimique yëpp nag boo ci tànn rek tey mënoon nañ la calculer benn bu ne <clears throat> ñu ne li muy def nii parce que booy xooloon bu jëkkoon li ñu mel ni prostate donc li mel ni jabet ca rarement nga ko daan gis parce que dañ naan prostate bu jëkkoon dañ naan mag moo koy am mag mi nga xam ne dem na am 60 jëm ko léegi da gis xale boo xam ne amul sax 30 ko am lu mel ni diabète dañ daan patron moo ko daan am léegi da nga gis ñi xamante ni amuñ dara sax ñu ngi diabète que lan la mooy ceeb bi ñuy lekk am na sukar boisson yi naan am na sukar et cetera cetera lépp lu ñuy jëfandikoo rek jàpp dafa am quatre-vingt pour cent sukar léegi nag sukar boobu noonu nag yaa ngi jël lu ëpp sa yaram te xamoo ko defoo espoir naanoo loo xam ne dafay wàcc sukar bi dangay dem ba da ngay am problème jabet moo tax loolu tout ce temps nañ ci bàyyi xel parce que li nga xam ne mooy naturel am fii ci dëkk bi ñun am nañ sens parce que ñun am nañ jinjar <clears throat> am nañ banaana am nañ pomme am nañ orange am nañ demedaay am na am na am nañ madd am nañ daqaar donc liñ am dafa bëri am nañ bisaab donc yiñ am dafa bëri nga xam ne mën nañ ci defar suñu di ko naan dafa bëri tellement que moo ñu jëm ci nga xam ne moo ñu jëriñ li nga xam ne nag moo lay jëriñ nga def ko léegi nag feebar dafa bëri trop trop trop parce que boo xoolee feebar bu mel ni hépatique B tey day li mu rey si gune li mu rey si xale kenn mënul wax nu mu toll si àdduna mooy feebar boo xam ne du ko gën a danger kenn mënu la ko parce que virus boo xam ne ni muy ñëwee kenn mënu ko xam parce que virus boo xamante ni tey mën na ñëw si taflit mun na ñëw tey ci jonjante ak sa soxna wala ke sa uh, nekkaale boo loon wala tey mu ñëw ci kaas bi nga xam ne dama cee naan yow nga naan ci virus boobu ñëw wàcc si wala tey man ma dem watu ji ci watkat bi tëndës boobu dagg ma yow nga watu si mu dagg la wala lamset bi wala puso ba ci médecin bi piqûre sax mën na ko am parce que mën na la piqûre piqûre bi bënn la dagg ko moom ba nar ko moom deret boobu dugg la nga amaat ko bon donc virus boobu noonu tey mu nekk loo xamante ni dafa doy waar dafay màgg te dafa am lekk bañ am naan yu muy bañ mën a nekk ci nit ki ba pare des fois sa yaram di jéem sa point de côté di jam di bàyyi des fois sa bët di fulu des fois ngay tayal ngi ba pare sa yaram di tayal ngay dem yàgg na damaa tooy ak dama fatigué ba pare doo dem hôpital saytu ji au nga dem benn jour rek nga dem ñu ne la sa hépatite B bi yéeg na ba laal na sa foie bi te bu xasee laal foie bi kenn mënu si dara moo tax képp ku sentir sa point de côté di jam ngay feebul sa bëti di fulu nga de ngay tayal di feebul demal nga saytu hôpital ba xam am nga ko wala amoo ko ñun nag yàlla na depuis 2014 wala léegi ñu ngi koy faj heure bu ne ñu ngi ci am résultat yi na nañ képp koo xam ne am nga ko daal war nga dem faju ju ko parce que dafay reye feebar la boo xam ne feebar bu doy waar la. macha allah sëñ bi Baye Mass loolu leer na maa ngi woon ñëpp tamit nag ku am yenn feebar yi muy ja yi muy jànkonteel ci yaramam tamit na contacter Baye Mass Baye Mass ñu bëggoon xam ku bëggoon jëflante ak yow ci yan numéro la la la mën a jotee. waaw alhamdulilah ñun suñu numéro bi 77 la da ngay def 9 def double 0 74 80. boo boo ñu si contacté rek incha allahu rabi dañuy jot 9 2 74 80 donc damay wax ne man feebar lenn la rek lu ëpp wala lu manqué nit ki nag su fekkee dafa am lu ëpp lu nekk sa yaram fexeel mu dëñ li manqué sa yaram fexeel mu dëñ parce que ba dama ko defaa ma ne imurit képp koo xamante ni yaa ngi koy am mooy bi nga xam ne da ngay constipé ba pare te fajoo ko mën na indi benn jafe-jafe bu métti parce que jafe-jafe bi mu la indil jafe bi mu lay indil mooy parce que nit ki toujours temps yaa ngi lekk lekk bi ngay lekk ba pare te te doo dem doo dem doo du génn da nga am jafe-jafe parce que tey mbuus bi def lekk bi bu demee 24 heures normal dañ ne 24 heures normalement war nga ci dem toilette ñaari yoon wala benn yoon léegi nag calculer nga toog 3 jours 72 heures wala nga 4 jours 5 jours demoo toilette léegi lekk bi nga lekk noon su tax a dugg ci organe bi bii nekk na ndox. bi nekk ndox pour nga dem tuur ko ndox bi war a dem ginnaaw kër yeneen nag mooy nekk vitamine yi nekk ndox boo xam ne mooy dox sa biir yaram pour nga am énergie yi nekk deret yi nekk et cetera léegi li war a génn su génnul jafe-jafe boobu moo lay indil jëpp problème pour nga gudd fan du yomb wala yenn yeneen maladie yu bëri moo la ko indil. jërëjëf sëñ bi bëggoon naa delluwaat tuuti ci composant yi ñu xam. waa composants yi ñun suñu garab lépp naturel la parce que ñun dañu liggéey ci. moringa bi dañuy defar moringa simple boo xam ne moringa kese la ak moringa boo xam ne dafa am ak jinjar dañuy defar poudre boo xam ne laaj lay nekk ak jinjar kese dañuy defar boo xam ne bisaab bu weex lay nekk ak jinjar bisaab bu xonq ak jinjar donc esta noonu liggéey suñu produit tey suñu produit ëpp na quinze produits yoo xam ne benn bokk te mais lépp amul sa effet secondaire lépp basa naturel la suñu base faj lépp ci lii lañ ko traité donc yàlla ñi ci dimbale nag fu ni lay dem ci àdduna nit ñi di ci am résultat parce que li ko waral mooy mbir boo ko jàng da nga jàng pour xam ko soo ko xamee nga jox ko cër bi nga xam ne moo ci war boo ko defee aussi tim nga jàng xam nit ki tey bu la ne lii moo ma dara nga xam automatiquement lan moo koy faj parce que des fois nit ñëw na la dama am ndoxu siti mais dem naa jël benn garab sama picc yi génn mais dama am jafe-jafe donc ki nga xam ne dafay fañ ndoxu siti tey loo xamante ni ndoxu siti bi bu génnee dafa fekkee daf ko daf dafa génn picc mu xam lan la ko faje parce que ndoxu siti lii rek la mooy am na boo xamante ni dafay génn picc am boo xamante ni dafay def heure am boo xam ne daf lay def euh, kurobët am boo xam ne day xar sa diggante baaraam yi am ndoxu siti boo xam ne dafay tooy sa diggante awra am ndoxu siti boo xam ne dafay def crasse sa bopp bi am boo xamante ni heure la lay def am boo xam ne day xar sa digg tànk yi léegi nag boo siti comme ni mu manifesté dafa bëri donc am boo xamante ni dafay dem ba nga xam ne dafay déformer sama nii pour nga am doom dafay am beneen problème nekk léegi nag lii nii nii boo xamul benn bu nekk loo ko mën a faja rek pour nga fañ ndoxu siti du yomb ñu ne yàlla dimbale ñu ak ndoxu siti bu nu mën a mel rek bu ñëwee am na yoon bu ñu mën a jaar su fekkee dafa def picc am na diw bu ñu lay defal boo xamante ni balaa man 72 heures nga tàggoo moom ci quatre bu fekkee tey daf lay sonal booy naan garab yi da ngay gis ne da koy saw di ko saw ba mu jeex tàkk kon donc ñun am na ci solution yu bëri moo tax te lu doy waar la lu sonal nit ñi la waaw jërëjëf Baye mas yegg nañ ci fi nga xamante ne moo di cappaandawu émission bi ñu ngi lay jox nga jox ñu suñu mot waaw mot la fin bi mooy ñi gën a góorgóorlu ñu ndaw ñi rek parce que xam ne ñun senegal ñoo koy defar euh, donc tey euh, may gën a ñaax ndaw ñi képp ku feebar rek nanga dem faju ji may gën a ñaaxa ndaw ñi tim mooy jamono jii ñu toll ci réew mi ak ci àdduna bi ndaw lu nekk war ngaa wut kaaraange parce que àdduna jaxasoo na ñëpp jàpp ne dañoo war a am. te ñëpp ñu ngi jàpp na ñoom nuñ amee baax na léegi nit nag bu nee ci réew moo xam ne nii kenn seetatu sa diggante suñu borom wala ñi ëpp seetatuñu ko duñ amee baax na ndaw lu ci ne boo bëgg mucc war ngaa uti kaaraange parce que kaaraange boobu moo lay suturaal ba nit yi bu la bëgg fàdd rek suñ borom musal la ci. macha allah Baye Mass tegtal gi leer na trop macha allah ñoo ko déggandoo numéro yaa ngi noonu képp koo xamante ne yaa ngi jot jafe-jafe ci seeram loo xamante ne daanoo ko njëkk contacteel Baye Mass 77 974 80 sa aajo dina faju ci kàttanu borom bi. wa salaam ba beneen yoon ak beneen i ndaanaan ci seen télévision TV BMC Pro